Eh, Père ñu ngi leen maa ngi leen di fay yéen ñëpp. Eh, lu ñu mën a ci mën a wax mooy li ñëpp wax rek nit ku baax. nit ku laabir te boo gisee mbooloo muy ko gunge. nga xam ni c'est pas donné à tout monde mu nekk nit ku baax nit ku gentil nit ku ouvert nit ku oyof. très généreux boo xoolee œuvre sociale yi mu doon def ci Ramadan bi di ko yóbbu ci prison bi nga xam ni que nit ku baax la léegi la ma sama benn xarit di wax benn anecdote boo xam ne daf ma bert dañoo dem def ay œuvre ci prison yi bi ñu demee def ko ba pare ñu ñibbi si il paraît xaalis bi des deux cent mille gars yi ne ko boo léegi da nga koy denc mu ne xanaa dama dof dencu ma ko damay dem wuti encore ay ay tiyaaba dem jëndee ko suuf euh, suukar séddale ko si jumaa yi te il est chrétien. caisse sociale moom moo ko yore moo ko yore woon te gars ñi nee nañ suñu cee am lu leen naqari. nit ku baax la woon lu ñu mën a wax mooy nit ku baax la ñu woon dañ koy ñaanal yàlla rek. seen relation lan la woon ah non on avait de très bonnes relations parce que on était euh, on avait une relation de père et fils dans le film ça s'est répercuté dans la vie sociale mu nekk sama xarit di ma tooñ di ma di ma di ma dóor di ma tàpp di ma won ne moom a gën a am kàttan nan ma yow sam papa ji xaaral ma ñëw wàccee la bokk nañ taxi maag moom ñuy ñibbi mooy wàcc yoon bi ne ko taxi bi ñaata la mënu ma demal maa lay fayal yoroo dara mais père yow yoroo dara man maa lay yox allez ma jël xeer dàq ko. dañoo dundee woon accident bi avant de tardivement je l'ai su tardivement après fekk mu ngi ci coma bi euh, vraiment je veux même pas en parler mal et c'est ça. naka nga à Touba 11h j'ouvre mon téléphone ma gis ko ñu bind RIP ma def ne ay caaxaan lañ ma dàq mu dem ñu insister après ma fi ma toogoon table ma toogoon dama yuuxu nit ñi ne ma lan ma won ko nit ñi mais ku ma ko won dafay mel ni que da nga koo xamoon ko man ni ma ko xamee ñëpp am leen naqari et ça c'est ça se ndax Sénégal ñëpp lay woo di lay jaale man amee ñoo xam ne dañu wut sama numéro di ma woo parce que chaque jour dama ko def statut su ma génnee euh, statut nit ñi di ma woo ki may woo du xam sax kan la wala sama compte Facebook wala Instagram c'est ça. waaw euh, ñoo gisee pourtant ay xeetam danañu euh, taalibe Bamba lañ ko doon woowee. waaw taalibe Bamba lañ ko doon woowee. moo tax bésu Bamba la dem. muy bésu 18 safar man taalibe murit laa jullit en la l'appelait Ndiaye wala taalibe Bamba wala SS SS Serigne Saliou donc dama koy dénkaat Cheikhul Khadim mi nga xam ne mooy sama yaakaaru tey ak ëllëg te am naa ci yàqin ci bésu bésu bésu safar gi sunu borom euh, wàcce ko ci ah man de murit laa te bëgg naa Cheikhul Khadim te am naa yaakaar ci moom ci li mu doon woote. Eh, polémique bi noo ko dundee. polémique wu lan. entre musulman chrétien. man dundu ma loolu parce que j'ai une partie de ma famille qui est chrétienne man je ne sens même pas que ni Sénégal am na dinaa dox sama dund xam nga JP lu mu daan faral di wax nit ñi bu ñu ko mosaan tooñ daf leen naan lakum diinukum wala yadin da ko daan wax. man sentir ma loolu moi je respecte tout le monde que les gens me respectent et puis c'est fini dundu ma lu nit di waxee ku dund leneen di polémique ci diine sa affaire la man dundu ma loolu. parce que ruus naa di wax ci diine jàmbur damay respecté sama diine na mën di respecté fu ñuy polémiquer di wax diine wala tarix sax du ma fa taxaw bugguma loolu